le sens euh, de cette euh, décision de ce choix porté euh, sur Amadou Ba amoo ci woon surprise voilà. oui ma may nuyu ñëpp euh, di jaajëfal tamit euh, waa 7TV mais man décision bi ñu jël tey man dama ci naw leaderu Benno Bokk Yaakaar yëpp naw ci le président de la République Macky Sall bi nga xam ne moom mooy seen njiit. parce que juróom-ñeenti semaine euh, président bi mu waxee léegi ne moom dootul candidat waa Benno Bokk Yaakaar ne ko léegi tànnal ñu kenn euh, te gis nañu ba mu jég ba mu nee dootul candidat moo ci sore gis nañu aura bi mu am ak ni mu ko joxe doole moom président Macky Sall Sénégal tamit def ci ay jéego yu rëy ci démocratie mais moom mu taxaw ne décision bi ñu ko jox dafa am importance mu jox ko gëddaam Euh, réfléchir consulter waxtaan jëf euh, raay si le faut mais taxaw dëgër jiital euh, intérêt Sénégal d'abord intérêt coalition Benno Bokk Yaakaar ñi nga xam ne ñoo ko terale loolu pour natt ba jël décision bu nga xam ne tey ñëpp nee nañ décision bi mooy décision bi gën mooy ci biir ak ci biti yëpp biir Sénégal loolu defe naa Euh, kooku buñ ko defee ñoom waa waa leader Benno Bokk Yaakaar yëpp euh, dañ leen di naw ñun ñu bokk ci biir tamit ñu gën a kontaan tamit xam ne ñun ñu ngi ci coalition bu nga xam ne coalition bu am taxawaay la ci politique euh, xam Sénégal bëgg jiite Sénégal am moyen wu jiite Sénégal aussi lool tamit moo ciy wax maintenant ci choix wu Amadou Ba defe naa décision li président wax ne euh, naka la ñu war a natte kan mooy président kan mooy euh, mën a nekk président wu Sénégal euh, moom bu président gis nañu expérience am parce que bokk na ci président mooy président bi gën a am réalisation ci Sénégal nekk ci période bi nga xam ne Sénégal boobu la gën a jafee gérer bu taxawee tànn nit ne am na compétence bi am na personnalité bi am na carrière bi am na loyauté bi am na recul bi ak humilité bi Euh, kooku defe naa ñun ñëpp d'accord ci man d'accord naa ci loolu ci Amadou Ba di ko sant di ko féliciter di ko ñaanal di ko gërëmal di ko ne nag laa ah, léegi nag na taxaw parce que ñun Benno Bokk Yaakaar mu suñu euh, dañoo taxaw pour jiite Sénégal yóbbu ko ci ay étapes yu gën a solo li nga xam ne nag dafa laaj mu yaatal. mu yaatal ci ci ci constat euh, selon lequel Amadou Ba. moo ci gënoon na yeyoo parmi tous les candidats. xam nga euh, loolu amatul werante ñaar xam nga bu fekkee ñun am nañu confiance bu ñu yemee rek ak ci fànn boo ko jëlee euh, président Macky Sall bu ñëwoon rek ne kii moom mooy candidat bi kooku mooy ki ko gën a yeyoo parce que ñun suñu décision politique dañoo ne Macky Sall nañu tànnal ki gën. bu ñu ko bu ñu desee nag ci moom li mu gën loolu den mais tey dama ne li tax décision bi gën a neex mooy moom Macky Sall li mu wax dafa tasanteeg li nga xam ne moom ñi gën a bëri ci Sénégal parce que décision politique tamit dans un système démocratique mënul def mënul nekk unanimité am na ñeneen peut-être ñu nga xam ne waxuñu waxuma ne amuñu carrière bi waxuma ne amuñu rek mais bu fekkee ne moom tey ñin ñi gën a bëgg ñi gën a bëri moom la ñu bëgg ci benn Benno Bokk Yaakaar ak ci Sénégal ci retour yi ñuy am yëpp kon dans un système démocratique parce que li am importance quand même c'est le suffrage te tey ki ñuy wut dañuy wut ki nga xam ne mën na gagner mën na continuer euh, projet bi ñu xam mooy balaa ngaa naam ne naam nekk fa kon tey jàpp naa ne bu ñu dajalee loolu yëpp def ko ci pañe bi waaw moom moo man jàpp naa ne moom moo gën a mérité mais ñeneen ñi tamit démérité wuñu mais ci biir Benno Bokk Yaakaar lañu bokk euh, dañuy euh, dañuy continuer di liggéey ci nekk ba léegi ci ginnaaw président Macky Sall ñoom ñëpp ci camp bi la ñu war a toog continuer ñun tamit moom it mu yaatal euh, wane humilité am na ko mais mu gën a wàcc ci suuf man jàpp naa ne gis naa ko bañ ko choisir ba pare euh, mais li ma gis mooy que ne moom dafay tiire ne nañu nañu wàññ bu ñu wax ci moom lu bari nañu wax ci Benno Bokk Yaakaar ak ci président Macky dool déjà yooyu ay marque marque la yu nga xam ne yu am importance